cinquante cinquante-huit pour cent la de maanaam quarante yu des kenn voté lu ma ci kon donc il faut ma redoubler d'effort pour ñooñu tamit mën a gis seen bopp nga xam ne électeur lañu te voté luñu ndax ci démocratie lañu nekk ci réew lañu nekk kenn ku ne ak ki gënal loolu fii lañ ko fekk te it dinañ jàpp ne ñoom ñooñu bañ a bokk wooteel ma wooteel yeneen i candidat ni nga xam ne noonu la démocratie di doxee na leen leer ni danaa def jàngat ci vote bi ñu def lan moo waral loolu wala boog lan la président wala lan la président war a def lu mu defuloon ñu taataan xalaat yooyu yëpp moo tax ma ne sama taxawaay tey en tant que njiitu réew mi ci kattanu suñu borom ak bëgg-bëggu askan wi

nit ñi jàpp leen ne war nañ ko waxtaanee waat ñu mën ko waxtaanee.